wàllum route mais fi mu toll nii moom ñu ngi xamal ne xaalis boobu lu ci bëri ci ay voilà ay centaines de milliards kenn gisu ko rek daf ne mërëb mu mel ni scandale yi tamit suñ jógee ci lii dañuy jëm ci lii mu nekk lu nga xam ne Pape doy na waar bu baax a baax mais ci wàllum li nga xam ne mooy wàllum projet boobu sax laa bëgg ñu ñëw avant ñuy ñëw ci scandale bi nga xam ne wala bo xaalis bi nga xam ne réer na fa. PSD. Mhm. mooy plan Sénégal désenclavement. dañ ko defoon pour maanaam Sénégal fépp am fi ay tali ay yoon. Mhm. mu waroon nekk ci deux mille sept cent kilomètres de route yi ñu waroon tabax biir Sénégal. 67 entreprises waroon ko tabax 67 entreprises locales et 300 sous-traitants locaux. Mhm. ñoo waroon tabax loolu. 67 entreprises locales. locales. Mhm. yu Sénégal ñoo ko waroon créer tabax trois cent sous-traitants. local bi moom ci intéressé parce que dafa am solo. voilà dafa am solo mu waroon jur cinquante mille emplois. Hmm. cinquante mille emplois fii ci Sénégal. Hmm. projet boobu bu demoon ba pare. Hmm. au moins deux tiers des sénégal <laughs> Sénégalais daañu ci gis seen bopp. mooy onze millions de personnes. PSD boobu ñeent institution financière. ñoo lëkkaloo pour financer ko. Mhm. banque d'investissement axée sur l'Afrique mooy SF Capital dirigé par le Sénégalais Moustapha Sow. Moustapha Sow. ASGC benn agence de crédit britannique. Mmh. banque japonaise ñooñu noonu ñoo dajale. la somme de 774 millions de dollars d'euros soo ko calculer mu nekk 507 milliards de francs CFA moo doon financement projet bi. projet bi <coughs> sur 2700 de route ah, de route. Mm -hmm. mais mu am ci kenn ku foqale trop. <laughs> ah ñëpp xam nañu. baron nee na ñëpp xam nañ. kan la waaw ah, mu ngoog. ah. baroom yi day mel ni day gisaane de. waa ji ne kër tëb cent milliards. Mhm. nee na yee eh, commission am la moom. cent milliards waaw cent milliards. cent milliards la këppatal ni tël. dam mhm. toog Dubaay. kon daw na. waaw dam toog Dubaay. moom day mel ni interdiction de sortie bi avant gars yi di ko. Eh, avant gars yi interdit moom dem na yoonam. <laughs> moom jël na moom jël na yoon bi dem na waaw. dem toog Dubai. Hmm. tey jii mu ngi diggante Dubai ak Canada ak États-Unis ah moom it daa jàngi mais imagine nga Omar c'est-à-dire sànq dañu doon wax l'étendue des dégâts. Hmm. ci nguuru Macky Sall. cent milliards. mais imagine ñu ne la mindeef waaw nee na moom commission moom commission moom. Mhm. moom cent milliards. mais photo bi ñi ci nekk dañoo bëri de faaw ñu wax ñu kan la tamit <laughs> ñu nekk ci photo bi tamit dañoo bëri de. mu ngi Dubaay daal toog gaa ya yaa ngi koy peeg di ko ndax pour mu ñëw waa ji nee du ñëw waa lànk na du ñëw. <laughs> mais ku am gàllaaj la de comme que génn na dem. yoo non yolleeku meles la def hmm. yolleeku Umar saa di des fois tu vois. <laughs> maa yi maa ngi bu baax baax. ah mag mu bàyyi këram daw kay wax dëgg yàlla jaaxle na jaar na reetaan de. Ah, mais je te mhm. en fait tu vois un peu dans quoi on fi Sénégal tollu loolu moo taxoon mhm. muy yow muy sa jarbaat muy keneen ak i keneen doomu keneen yaayu keneen nit ñi di xeex pour que loolu bañ a bañati am ci Sénégal mooy mhm. maanaam mu am benn caste rek mhm. bu taxaw ne ñoom ñoom rek war a tekki ah <laughs> voilà <laughs> dégg baron baron baaxul quoi. non ñu non yaay ji bu ñu ko jàppee baaxul quoi bàyyi yaay ji foofu mais ñooñu taxaw ne ñoom rek ñoo war a am une casse cest à ñoom rek a war a am. mais hmm. Umar c'est-à-dire seen damay wax ak benn banquier mu ne ma may man mu ne man banquier laa man quoi ah. mu ne ma est-ce que xam nga ne man mu musuma gis plus de cinq cent millions yu dajaloo. Hmm. il est il est banquier moom. mu ne ma j'ai hmm. jamais musuma ko gis. 500 million yu yu yu ñu saam ne mu ngi nii mu ne man mosuma ko gis. Hmm. mu et quand je vois des gens parler brasser des milliards comme ça. mu ne ma mais j'ai un problème. te nag lenn dinaa la ko wax Omar. Hmm. gars yaa ngi traque reddition des comptes. mais gis nga Omar reddition des comptes bi buñ ci farluwul trop trop trop. Hmm. ñu ci bëri tabax nañ seen foos yi nañuy mujjee vidéo dugal fa xaalis bi. foos waaw foos yi nañuy vidéo dugal fa xaalis bi. parce que yenn xaalis yi moom sañoo ko yóbbu banque. sañoo ko. waaw des fois ay prête noo la ñuy def mais prête noo yi sax bàyyi nañ ko dañuy gas denc. dañuy gas denc moo tax dañu war a farlu. tous mm-hmm. ceux qui sont concernés. Mm-hmm. war leen dem jëli. ni mu gën a gaawee. teg leen ñu wax ak sénégalais yi Omar ce pays regorge de richesse Sénégal dafa riche cest à ñu mën a génne ay cent milliards ay deux mille kilos or Omar dëkk bi am na xaalis de ñun ñoo ci jotul doxal tuuti rek nga génn dem à l'intérieur du Sénégal yow damal Fuuta gi nga nekk les phosphates éco bi c'est-à-dire richesse yooyu ñu ne la mhm. que Sénégal am na lii yëpp mais doo gis njeexital ci askanu Sénégal mhm. c'est inadmissible c'est inadmissible moo tax gis nga cette reddition des comptes là. Mhm. am na ci kenn ku ma gis tey mu def benn poste quoi moom daw na mu ngi bitim réew. Mhm. waaw moom bi muy dem Guinée Bissau la jaar génn ne fes dem yoonam. waaye poste boobu kay jarul ngay toog bitim réew di bind duduka da ngay ñëw fii Sénégal nga bind. waa gis naa muy démentir le ministre El Malick Ndiaye. waaw c'est vrai il a tout à fait raison. mais bu ñëwee Sénégal démentir kay moo gën. mu ñëw juste day justifier du démentir. waaw non non mm-hmm. déedéet moom kay na ñëw Sénégal démentir moo gën. parce que côté boobu tamit li fa El Malick Ndiaye wax dafa garaaw ci transport bi la ñuy njëkkee mooy wax na ne voilà Dakar dem dikk ci opération tabaski bi gis nañ ne dañoo manqué la woon ay chauffeur bay dem di jël armée bi ñu yóbbu gars yi te plus de mille personnes am nañ fa contrat. contrat mais soo demee ci aéroport tamit li nga xam ne mooy chariot yi gars yi pousse li ñu waroon a jand toll ci 6 à 7 milliards ñu yóbbu ko ba une vingtaine de milliards. Omar lenn ba léegi livré wuñ dara. Omar lenn de dinaa la ko wax bi nga xam ne moo nekkoon Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. matériel bi nekkoon Léopold Sédar Senghor. Mhm. Omar matériel boobu ba tey jii dafa réer. réer waaw. tapis roulant yi nangam sangam matériel bi nga xam ne. Mhm. Euh, portique magnétique yëg yooyu yi nekkoon Léopold Sédar Senghor. xam nga ay AIBD bi muy ubbi matériel bu bees nañ fa yóbbu. Mhm. mais matériel bi nekkoon ay euh, Léopold Sédar Senghor matériel bu bees la woon. aéroport Léopold. mais dafa réer. non moom kay noonu dañ ko kii dañ ko sàcc <laughs> réeru. mu ngi fee ca Maroc. matériel bi nekkoon aéroport fii mi ngi Maroc. jaay nañ ko foofu. ñan ñoo ko jaay. ah jaay nañ ko daal Omar gis nga dëkk bi. jub mhm. jubal dumante bi il faut mu am solo. il mhm. faut que mu am solo il faut que mu am vraiment une finalité comme ça au moins Omar. Mhm. nit dootul xalaatati ne. parce que maa occupé tel mhm. lu ma neex def. lu ma il faut que ça arrête il faut que ça cesse. Umar mhm. ñi ci profité nuyuwaat sunu mbokk yi. jeex mhm. na tàkk baron nee na na tàkk mayatuñu dara. waaw nuyu sunu mbokk yi ñoom ñëpp. rafetlu jataay bi nuyu encore bàcc fële sa Ziguinchor. nuyu jimaat. Euh, nuyu également sa turandoo Omar Ly two five two five ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak madame Ly mu ngoog mhm. bu baax a baax gërëm baron nag ci taxawaay bi mhm. waaw am na ku may laaj ndax baron am na jabar mais jabar di nekku fi de célibataire la amul dara bark <laughs> bark nee na amul dara baron de maag moo ma yem gars yi ñu ngi may takkaloo jabar mais moom tamit fi mu toll nii kër à prendre la <laughs> di ko jaajëfal bu baax a baax moom baro mi nekkoon ci li nga xam ne mooy wàllum technique bi waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokku internautes yi ñu doon accompagner ci live bi di jaajëfal Feuz monsieur Dieng ci wàllum li nga xam ne mooy coordination bi di jaajëfal Grand Parc moom baro copain la de dañoo yàgg de <laughs> loolu avant wal fa la gayan lu yàgg la ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci assistance bi waaye tamit di jaajëfal mbokk internet yi comme ni ma ko waxee sànq rek di leen jox dig daje beneen jeudi ci beneen live jaa jëf